moo tax euh, euh, xeex boobu euh, bagaar boobu Siteu daf ko war a éviter. problème bi Siteu la na fexe ba ba ba def exploit. moom Siteu. waaw mu bëree mu fexe ba am ak exploit. comme ci bëree fexe ba daan nga naan ma ci naka <laughs> loolu mooy làmb. dégg naa démb Ndiouga Dia maa toog heure bi seetaan ko TFM. Mhm. Ndiouga Dia. Ndiouga waaw. ko seetaan TFM gis naa ko Thierno waaw mu maa ko seetaan mu wax. ki mënul yéex. ndaamal màcc la njoolul amul guddaay bu koy sonal. wallaay dëgg la. yaramam li mu porté moo ko moom. Mhm. yaa xam attan na ko. Mhm. tey la gën a gaaw te lépp vivacité. mais Ndiouga sa loxo dina def sa gémmiñ de. <laughs> Ndiouga man maa sama grand nga nag mais man maa lay defi sa loxo dina def sa gémmiñ. waaw su di gis nañu Modou Lo xam Modou Lo nag d'abord dafay euh, nit ku gàtt. moo tax bu jëlee masse dafay feeñ dafay gaaw feeñ boo gis nañ ni que il a du du masse te defe naa wax naa keroog depuis face to face ba mais la ma waxoon rek mooy gëmuma ni que dana ko indi bu bees ba mooy stratégie la il avait besoin de gis Siteu Siteu tamit avait besoin de gis Modou donc ku ci nekk ca ñoom ñaar la ngay indi làmb ja du lii guerre bi hmm. guerre ab rey reyee koy jeexal yow Modou Lo yow ak na maa leen gën waaw mo de di weqaateeg lu ne mu koy def. faiblesse am xam nga moom mooy lan. waaw mooy mbër la boo xamante ne nii euh, saay boo ko touché maam mën a ñëw sa kaw. moom Modou Lo. boo ko bu bu jëlee sa coup rek dootul ba dootul am sago. mystiquement li nga ciy def ci xaalis. dégguma ma ne mystiquement li nga ciy def ci xaalis ndax di nga ko def ci ñeneen boo ko amoon parce que lii c'est un combat royal la. man ku daan boo ko daanee da ngay nekk roi des arènes. waa yow mystiquement bi nga wax. waaw man mentalement laa koy bëree foofu laa koy jëlee. xel mu ah, daal tempo tempo piano piano jël sa pain am sa yaa sa lapin. nga ne. déggoo du waxaat ñaari yoon. non man moom sama combat ku nekk xam na ni moom kuy faaw mu taxaar naa. dina ñam. non loolu mun da ñàkk. Ah, ñam moom mun da ñàkk. Ah? moom ku ne xam ne damay safal bu pare soog a bëree. Siteu tekkeem ji du nelawam de. Hmm. Siteu. ku ne xam na ni Siteu bu Moussa ñëw ci signature da koy safal ba saf saf bii nag ay ay kan foo de nekk ci ginnaawam nag. Hmm. am luñ ko dee mu nangu ko. boole xam-xamam tee. Siteu euh, gisoon naa ko benn instant mu jëloon benn maas mais tey dama xool vidéo euh, distribution fourniture bi ma gis Siteu bu différent euh, pour man liggéey bi dafa des. des na lu bari bari bari bari bari te li ko desee pour combat bi bariwul. xam naa ne bëre bi ci Modou Lo kaar bi nawul ci Siteu man a xeex gi ci Modou kaar bi nawul ci Siteu Siteu nag euh, am na am na euh, moo tax daal man daal dama yaakaar ne euh, Ndeye Comba Siteu wax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla ci ku xam làmb ku yàgga seetaan làmb man pour mu daal Modou Lo daf may bett. le bu dee le 24. le cinq waa parcelle duñ nelaw de. yow looy wax nii. man xaadim maa la wax lii. Euh, ba 26 duñ nelaw ñoom ñëpp duñ nelaw. Balla Gaye numéro 1 dafa wax lu am solo te borom xam-xam la. te ku ñuy déglu la. ci Siteu ci force de frappe am wax na ko dëgg la. ndax kenn dàq koo xeex waaye loxo ba dafa desee diis. lamb ji sax mën na euh, ardo mën na ci am. ardo mën na ci am xam nga Modou Lo mosul dem ardo mais mën na dem ardo Siteu itam mën na dem ardo ci te njool la d'abord gis naa ni que épaules yi baax na xanaa peut-être que muscle euh, waa muscle euh, wala bec poitrine yi laa gisul ni que xëj na liggéey na ci liggéey bu te si te mën na am loo ëpp lii parce que njool la xale la mooy suy bëreeg Modou Lo daf ko doon ëpp doole deux fois non daf fois. si te nag crochet gauche boobu ma lay wax bu dalee Modou Lo Modou Lo mën naa daanu. mën naa gaañu moo tax ragal naa ne Ardo dina am ci làmb ji deuxième reprise la jël di ñëwee. imagine Siteu daan Modou jël roi bi coow lu rëy loolu noonu. xam nga ñu ngi naan Modou Lo dafa mën a pied droit. waaw mais Siteu tànk bi ko Modou Lo di tegal Siteu moom la gën a mën a. laa ilaaha illallah. man ta xoolal tànk Siteu ne wax naa ko nee naa ko xoolal tànk bagaaroo Modou ba mu def changement de pied rek amul lu ma neex. dóor ba mu joor la tànk chaque